Sen Sport 221 dal leen ak jàmm ci xibaar yi tàggat yaram yi Youssouf Badji nekk jeune attaquant bi nga xamee ne mu ngi évolué ci football club bii di Bruges nekk foofu la ca Belgique moom jeune attaquant bi lee di évolué ci football club bi nga xamee ne foofu la kii di Krépin Diatta di footballé moom Youssouf Badji tànn nañu ko mu nekk jour bi gën ràññeeku ci mois de août ñu génn mu def ay jaloor yu ama am solo ci ndortale saison bi foofu la ca Belgique ak football club am boobu leen di Bruges dugal na ñaari bal ak benn passe décisif ci match nga xamee ne na ko ci ndortale saison bi foofu la ca Belgique kon kii di Youssouf Badji moom la ñu tànn mu nekk joueur du mois de août maanaam joueur bi nga xamee ne moo gën a ràññeeku ci mois de août bi ñu génn moom Youssouf Badji toll ci fukki at ak juróom-ñett transfert kii di Ibrahima Balde jógee na fi nga xamee ni moo di Real Oviedo nekkoon foofu la ca deuxième division bu Espagne ci football club bi nga xamee ni moom lañuy ñuy wax Giresunspor moom attaquant bi lee toll ci fanweeri at ak benn ndekki daaw mu joué lu toll ci 29 match ak football club boobu de Real Oviedo dugal lu ci juróomi bal moom Ibrahima Balde. bu ñu fàttale ko bokkoon na ci ñi nga xamee ne demoon nañ ci olympique bi ci atum 2012 moom ak ñi nga xamee ne ñoo di ñoom Sadio Mané ñoom Moussa Konaté bokkoon sax ci ñi gën a ràññeeku ci li nga xamante ne moo di tournament boobule moom Ibrahima Balde jaar ci football club bi ci mel nii Atlético de Madrid ci ay jamono niki daaw nag mu nekkoon foofu la ci deuxième division bu Espagne ak football club bii di Real Oviedo kii xibaar yaa ngi xam ne kii di Ibrahima Balde dem na foofu la ci Turquie ci football club bi ñuy wax Giresunspor kii di Mbaye Diagne nag moom dafa am li nga xamee ne moo di gaañu gaañu buy sukkandikoo ci kayiti xibaar bi moom attaquant international sénégalais bi le nekkoon ki nga xamee ne sax moom mu ngi doon wane loolu boppam ci match yi nga xamee ne Galatasaray ñu ngi ko doon joué di préparé li nga xamante ne moo di ndoorteeli saison bi moom Mbaye Diagne dugal ay bal sax ci jongante yi nga xamee ne sonn na ko joué ni ki fan yii ñu génn nekkoon ci forme bu jéggi doyo waaye kii di xibaar yaa ngi xam ne ne kii di Mbaye Diagne dafa am ab gaañu-gaañu ci nga xamee ne moo di ci entraînement yi na wutee sax li nga xamee ne moo di ndoortali saison bi foofu la ca Turquie kon kii di Mbaye Diagne bi nga xamee ne ñibbisi na jógee foofu la ca Bruges ñibbisi waat foofu la ca Galatasaray doon wane boppam nekk ci forme bu jéggi dayo ñu ko doon xaar sax mu wane boppam loolu ci li nga xamee ne moo di ndoortali saison bi foofu la ca Turquie kon kii di Mbaye Diagne am na ab gaañu gaañu buñ sukkandiku ci këyiti xibaar yi nag nekkul lu sérieux loolu waaye de mën na utee li nga xamee ne moo di ndoorteeli saison bi foofu la ca Turquie ci jongante gi nga xamee ne war na dox ci diggante Galatasaray ak Gaziantep